xasaayidi min mujizati lmuntaqa salla alayhi man hadaahu wantaqa xasaayidi min mujizati lmuntaqa salla alayhi man hadaahu wantaqa haajat xasaayidi qalba kulli man lahu saadatan walin xaadal aman ñuy seetaan euh, ci biir réew mi di Sénégal ak ci bitim euh, ñu ngi leen di nuyoo fii ci Touba ci tey euh, fukki fan ak ñett ci weeru juillet atum 2023 ci bisub xasida bi nga xam ne Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké moom Serigne Bassirou di xalif général des Mourides moo ko santaane muy ñetteelu édition bi donc ñu wër rek ci mboolem site yi nga xam ne ñoo nekk fii ci Touba Mbacké ci ni nga xam ne noonu la ñuy dundalee bisu xasida bi ci ni nga xam ne noonu la ko sëriñ bi santaane waaye particularité bi mooy ci chaque année ci euh, bésub euh, journée xasida bi dañuy gis euh, waa kër maam Cheikh Ibrahima Fall ñu ñaanal Serigne Amdi Fall moom Serigne Modou Mbenda mi nga xam ne mooy xalifa général des Baye Fall mu gën fee yàgg lool gën a wér baagalee liggéey yëpp waa kër maam Cheikh Ibrahima Fall bi fu kawe njortam ñoom it dañuy am liggéey bu solo boo xam ne dañ koy amal ci bésub xasida yi muy zikrulaa gi nga xam ne du dakk benn yoon bu jullee fajar la ñuy door li nga xam ne moo di zikrulaa gi fii ci penk euh, jumaa ji fi nga xam ne moom moo nekk rek ci euh, kanam armeel yi fi amee li nga xam ne moom moo di zikrullaa gi gis ngeen kuréel yi li nga xam ne noon la nekkee ñu ginnaaw ñu wër nekk ay kuréel yu bëree bëri yoo xamante nii wër nañ fi nga xam ne moom moo di euh, julleekaayu it bi ci kanam fi la ñuy amalee li nga xam ne moom moo di zikrullaa gi ci njiital ñi nga xam ne ñoom ñoo di Serigne Bassirou ñas ak ñi nga xam ne ñoom la àndal liggéey bi ak ñi nga xam ne ñoom ñoo yor lépp lu jëm ci wàllum zikar ak daayira yi Maam Cheikh Rafaal ñoo yëngatu ci euh, fànn googu kon mbokk yi fii ci penku jumaa ji ñu fas yéene euh, dem taataan kàddu yi sëñ Bassirou ñas ci ni nga xam ne noonu lañu ñu nosee liggéey bi ndax euh, zikar si door na waaye dañ ko ànd ak mbooleem zikarkat yi nga xam ne dañoo nekk ci waa Kër Maam di Baye Fall yi nga xam ne kenn ku ci nekk am na waxtu woo xam ne moom lañ la jox moom nga war a zikar jiite ko su àggee ga bàyyi keneen jël ba keroog ndigal li di mat muy ginnaaw takkusaan kon mbokk yi ñu ànd teewlu kàddu yëkkati na ko di leeral li nga xam ne moo jëm ci liggéey bi. waaw bon sant yàlla julli ci yonent bi ñu ngi tàmbale suñu wax ci alhamdulilah rabbil alamin di sant yàlla bu baax di ñaanal sëñ bi Fall suñu Modou fi nekkal maam Serigne Fall ñu ñaan suñu borom yàlla na ko gën a yàggal baax te wéral ko li mu naan lépp liggéeyal ko maam Serigne Fall mu def ko ni mu ko soobee dañu ànd ko moom ñu jàpp mbéteem baax ñaan suñu Tuubaa suñu dund taxaa suñu borom yàggal suñu dund wéral ko tam ba ñu bëgg la suñu tool lépp mu def ko ni mu ko soobee njëriñ suñu tool gépp nag di leen nuyu ci kàddu sëñ maam moom Cheikh Serif Assane moom maam Sanaay Fall sëñ maam Cheikh Fall si pour nga xam ne moo jiite daayira xidmatu maam Cheikh Fall bi nga xam ne moo lëkkale tuddkati yàlla yi te nekk ci liggéey bi taxawu liggéey bi mu agsi liggéey bi moom bi ñu jotee ndigal rek ci sëriñ bi la nga xam ne bëgg suñ tuwaa la bëgg suñ tuwaa nag faaw Cheikh Fall na ko loolu moom ñépp xam nañ ko danoo waxoon ne ca ca bañ ko yëgle ci jamono nawet lan nekk waaye kenn ko na nga xam ne loolu ndox mi bëri bëri daa sikkar si rek suñ mbokkum tali bi waaye yàqul ndax loolu suñ taa bëgg faawu maam safat na ko liggéey bi nag yàlla daa dogal bu ñu këri seera fall yi dañoo nasu ñoom ñëpp ci tur yàlla suñ maam Cheikh Fall ni nekk suñu kanam bi nga xamee tàbbi nañ ci liggéey bi itam niñ ko ndorte mooy 6 heures de matin 6 heures sera ko yëkkati te ñu ngi ko fas yéene ñaan itam 6 heures ci ngoon tur yàlla itam du dàq dara du ko dàq ba bàyyi 6 heures di jot incha allah rek kuréel juróomi kuréel la kuréel bi njëkk a njëkk a yëg ci siiséer mooy kuréelu daayira Sikurlaahi bi féete sawu ka ko jiite di ah, sëñ sëñ sëñ Saaxo moo ko jiite moom itam xam nga kuréel bi topp moo lëkkale seexi maam Serigne Fall yi nga xam ne moom itam ka ko mooy sëñ Mor Ndiaye Sikurlaahi kuréel bi topp moo doonoon sëñ Daam Ndiaye moo boot. li ko dalee ci kër euh, doomi Cheikh Fall yi di dalee ci kër sëñ jàpp kër sëñ Mounda Fall euh, moom sëñ Cheikh Fall jàpp itam kër sëñ euh, Modou Mbenda moom moo leen boot moo toppoon moo bàyyi léegi kii jël tey mooy sëñ Dame Ndiaye moom moo jël ci moom lay wax nii moo boot kër yooyu yëpp su bàyyee sëñ Baye Fall ci moom moo boot kër si amul Moustapha Fall boot tam kër sëñ Assane Cheikh moo boot kër yooyu su noppee sëriñ Cheikh Ndoye moo topp sëñ Baye Fall tam moo boot kër sëñ Baye Ndar moo tax ñetti kër doomi Cheikh Fall yi ñoom la boot muy kër sëñ Moussa Fall kër sëñ Assane Fall kër moo topp kër sëñ Aliou Fall moo boot kër sëñ Mor Talla moo boot ko sëñ Basiru Fall Awa Jaxate yii la boot moom nag mooy dem ba 6 heures noonu lañ ko nasee naka jëkk itam noonu lañ ko daan nasee noonu rek lañ ko daan nasee cest à moom min nañ jataay min boo xam ne nu mën a dikk rek dañ ko séddee kuréel rek fay daal ko de waaye waxtu ko sëñ bëgg rek waxtoo moom jeex nañ ci ko jataay bi tam murid yi gis nga leen nii ñoom daanaka 6 heures ba tey nii la jataay bi mel lu ne ngi fii ñëw nag lu ne murid yaa ngi koy ngir yaakaar sëñ Touba te jaaree ko ci maam Serigne dafa am kilifa gu baax daa waxoon ne sama déeb ma ko jox ab Baay Faal la ma moo mooy damaa xam ne ñoom lu ñu yor jox ko Sëriñ Tuubaa waaye man xaw ma baax moo joxe Sëriñ Tuubaa na ko waaye ñoom ko joxe Sëriñ Tuubaa mu nangu loolu moo tax gëmul Sëriñ Tuubaa bu ñu ko natt ci murit mooy ni mu ni mu toll ci maam Seex ku la gën a bëgg maam Seex Faal moo la gën a gëm Sëriñ Tuubaa te moo la gën a wóolu loolu daal mooy liggéey bi ñu ngi sant baax nag ci liggéey bépp nag di ñaan sa ba defal ñu tawfeex tawfeexu sëriñ bi yàggal fi itam Seex Muntaxa ndax mu sëñ Muntaxa moom ñëpp xam nañ ne dafa yeesal te mbir ku ko moomut mënoo ko yeesal looloo tax lii mu indiwaat na muy loo xamante ne bii kenn ku ne xam na ne surna si kurlaay moom moo ko njëkk def ci tuur sëñ Tuubaa ci leen xam ñun moo ko fi njëkk a def boobu ba tey itam mi ngi nay dem ñëpp a ngi gis seen bopp ndax ba mu ko njëkkee woote corona la dajaloon mu fas ci dàq ba mu dikkee lañ ko gëj a moom moo waxoon ne li ma doon saytu ci tur yàlla bi am naa ko bii mu ko defaat itam lam lam ñu digaloon mooy jiital jéggalu suñu borom tuubal ko dellu ca moom ñaan sa borom tam jàmm ci réew mi ñaan newatu jàmm naan ndoxum jàmm noonu la ko duggoon te dina dina ko yëpp ndax suñ lu mu bëgg rek yàlla fekk na ko ah diggal na sant yàlla rek ku ci xam ne la war da nga xam ne maam Serigne dara indi ko woon jamono loolu liggéeyal Sëñ Tuubaa war na Sëñ loolu nag day mbañum kër gi kër gi moom ñàkk a jëfe ndigal mooy mbañam kër Cheikh Fall ñàkk a mooy mbañam Cheikh Fall tam ku bëgg te gëm ko faaw nga xam ay sartam ay sartam mooy ponk yi nga xam ni moom la yoon wi tëral faaw nga tënku ko du maslaa maam Cheikh Fall yorut lu muy maye lu muy jaay la yor te ku jënd nag yaa moom waaye lu muy maye moom amu lu muy jaay rek la am ku sóobu nag yaay fexe ba jënd te li gën ci murit nag. mooy saa bu sëñ bi diglee xelam dem ci yow waaye murit boo xam ne sëñ mën naa digle ba ba digal jeex te xelam dem ci yow loolu du murit ñett yi kum dal amoo te amoo ndimbal mooy murit boo xam ne kilifaam ragal na ko ba du ko digal mbaa bu ñu ko digalee xelam dem ci moom ak soxna soo xam ne borom ko ragal na ko ba du ko digal ñii kenn amul ci ndimbal kenn ndimbal mooy ki nga xam ne fu ko sëñ bëgg a jaar la jaar la loolu rek mooy liggéey maa ngi soñ murit nag ñu gën a fonk ci kurlaay yi sëñ Muntaxa nee na dara gën ka gaaw àggale nit yàlla xamu ci lu gën a gaaw baatu sikar te kuréel di ko wër nee na xamu ko moo tax nag nañ ko gën a téye te gën koo fonk gën koo xam gën a waajal bis yi tax na lii lu dakk la lu dakk na ku ci bëgg a bokk da nga waajal sa bopp ba man cee bokk di leen ñaan leen tamit yàlla na saa ba defal leen tawféex sëñ aar leen def leen ñooñu boppam barki maam Cheikh jërë ngeen jëfati mbokki euh, téléspectateurs yi mbokki internautes yi lii mooy li ñu leen jëlee woon euh, fii ci penku jumaa ji ci euh, kanamu julleekaayu it bi fi nga xam ne fi la waa mam maam Cheikh Ibrahima Fall nekk di fa dundal li nga xam ne moom moo di journée xasida bi ci zikru laa goo xam ne takkul benn yoon ñu ngi ko tàmbali ci euh, biñ jullee fajar ba noppi rek ñu door ko ci ni nga xam ne noonu la ko Serigne Bassirou Niass leeralee nga xam ne saa su ne euh, kenn ci sikarkat yi nga xam ne dañoo nekk ci yoon wi muy waa kër maam Cheikh Ibrahima Fall jël ànd kook ñenn ci buntu kër waa waa kër maam Cheikh Ibrahima yi. ñu wéyale zikar si ba waxtoom mat euh, ñu jox keneen mu wéyale li nga xam ne moom moo di liggéey noonu lay wéyee incha allah ba ginnaaw euh, tàkkusaan ñu leen di sant bu baax a baax di leen gërëm